أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ الله منه وني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فالله وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكون الآن ضيقي أزل عاجلا بالبشر مع مرج حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوعي لتوبى واحمني وقني أدى الورى والتجب لي سما إسكانا لك السماء والأرادي والهواء بها مشارك يرد مشيك بنا أجب وسلي بسلي من حلا سادي محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ñi ngi nuyu ñëpp rek tey di di di ndokkeel bu baax a baax ñëpp jullit ñëpp ak murid yëpp fu ñu nekk rek ci màggal gi nga xam ne agsi na muy bis bis bu tedd boo xamante ne ndamul ñëpp la ndamul lislaam la kon moom yàlla nañ ko yàlla fekkele yéggi ko ay at yu bare bare bare te nagul ñu ko xam naa sëñ Mamour Touré mi di ko sant bu baax nag sant bu baax fàtte nañ ko sant ca waxtaan bu njëkk wi bu ñu doon wax ci xutbatu tuum seen jàmbaara lool wax di yàlla alxadimi kooku yàlla na ko sunu boom kàttanal ba li mu yéene ci aw yi lépp sunu boom mottali ko ak sëñ Tuubaa kon li ñu war a waxtaane waat day waxtaan day tomb bu am solo boo xam ne jombul ñu bari gisaguma ñu ñu waxee ko noona waxtaanee ko noonu daal ci xam-xam dëgg mooy li ñuy tuddee ci ci ci biirum dara ba biirum dara ba mel na ne daa mel ne kilifa yi fekkente wu ñu woon ca bureau ba kilifa yi di ay kàngam lool ñoo xam ne tubaab yi dañoo sélectionné tànn ñi nga xam ne dañuy woote na ñoom ay sëriñ lañ dëgg du ay ay ay sëriñ dara képp waaye ay sëriñ lañ ay musidin lañ ñoo xam ne dañuy dañuy toppatoo nit ñi seen roog seen jëmm ba àggale leen ci seen borom ñooñu kon di ay ay ay ay kilifa lool ñu bëgg nag leeral sëñ Tuubaa wax position am gis yi nam ca ñooñee ku ne xam na ne sëñ Tuubaa bi bi muy dem ci géej gi ndar keroog mbooloom mbooloom ay kilifa ci turux yëpp ñëw nañ fa di di ko ndokkeel xaritam ba mbokkam sëñ ma sëñ Malick Alaaji Malick si keroog yónnee na ko moom ñëwut waaye yónnee na ndaw jox ko turi asmaawu ahli batin ya ba mu dikkee jox sëñ bi sëñ bi ne bi ne ko Malick di xam naa dafa baax rek ci waaye man jëmm yàlla àndal loola kon moom kon Alaaji Alaaji Malick kon kon moom kon def na kon lam man ku ne xam na ne bi sëñ bi jógee bi sëñ bi jógee Mbàkke bari di dem ba ba ba fa génne rek sëñ Bakki Bousso dafa daal di di di fajar ñëw fa ubbi gaal yi lettre yi nga xam ne da ko kilifa yi doon bind di ko wax ànd gu ñu ànd ak moom si sëñ Bakki Bousso daal di jël lépp lakk ko gas ko suul ba mu dëddee rek la tubaab yi ñëw di di xool si ba xam bakaas ya nga xam ne kon kon tuuti kon rek tubaab yi fekk fa document yooyu te te kon danañ sonal kon sëriñ soose kon kon sëriñ sëpp kon àndoon nañ ak sëriñ bi kon ca liggéey ba muy muy lu lu am solo yaakaar naa bu ñëwee ci irwa unadim bi nga xam ne suñu ma dem jiw ko bind te waa Azhar moo leen ko kana passe deux cent trente trente-huit la bu bu ñëwee danañ fekk ne sëñ Madlamin Diop di wax ci bunt bi bi muy wax cofeel gi sëñ Tuubaa am ci jullit ñi mu ne bokk na ci li gën a na yéeme nga xam ne nett nañ ko mu ne li gën a yéeme nee na sopp gu mu sopp gaay yi ak ñeewante gu mu ñeewante jullit ñi rawatina nag kilifa yi ay way gëm yi mu ne su mu la dana dana wa mimma xakkaa lanaa min ajabi xubbihi wa agrabi shafaqatihi li xawaasi mu al muminin xawaasi muminin ñi gën a gëm yàlla nee na sëñ bi wax na ne ba ma nekkee ci géej gi jamono jamono yi nga xam ne tubaab yi dañ maa taxrib foofu danaa foofu lu am solo ñuy bind bindkat yi nee naa leen buñ bind naf yu seex dañuy wax dañu bind taxribu seex suñu tubaab dafa bind taxrib lay bind ak xurba kon lañ kooku kooku ab terme la nañ koy jëfandikoo naf yu moom man ne buñ kat tàmm naf yu sàmbalaw bi faal tàmm naf yu maanaam daa léegi Alburi Njaay wala yu mel noonu mën naa nekk loolu loolu dëppoo ak exil exil mooy mooy naf yi waaye ma suñu tubaab moom ci ay mbindam du jëfandikoo loolu moom ngi jëfandikoo taxrib mooy tum rànkeel ñaana nee na ci at yooyu ataani fi fii ba'di sinniin ana axaana Mouhamad Seck almaruuf bi sëñ bi sëñ Lambañ Seck huwa wa axuna Mouhamadu Diop almaruuf bi ma Diop maram sëñ fetto xarabahum xarabahuma nasara wala adri ila ay jihatin nee na nee na ay ci at yooyu digg na ab xabaar dikk na ma ne ma kat sëñ Mouhamadou Seck mu te ñu tuddi ko te gën a siiw ci sëñ Lamañ Seck ak sëñ Mouhamadou Diop nee na mi gën a siiw ci sëñ Mouhamadou Diop Marème sëñ Fetto ñoom day tubaab yi dañ leen a tumurankeel nee na xaw ma fu fu ne nee na day booba aslamat alaya dunia wa takaddara waqti yi shafaqatan lahuma nee na man de booba nag bi bi lu amee nee na sama adduna lëndëm na suñ bi wax de nee na sama waxtu daal di nax ndax ñeewantu goo xam ne nee na shafaqatan lahuma ndax ñeewantu goo goo am ci ñoom ndax ne li anni laa uhibbu ay an yabtaliya mimma yukaddiru tawxidahuma nee na bëgguma kat ñu doon na tooleel yoo xam ne dana naxal seen tawxid aw yaslubuhu wala sax faru mu koy rëkki ngir ay coono coono ya tubaab yi mbandite ga ëpp na moo tax ku leen di roy dangaa dof rek da dangaa ñàkk maanaa su sëñ bi ne maadallah yàlla yàlla mu su sëñ bi ci rek ci rek ci rek ki ngam sëñ bi nag nee na ba ma déggee xabar booba yërmande gi yi ma am ci ñoom ak ñeewante ga ak ni ma xamee su tubaab yi seen caay-caay nee na fa tadaratu ilallahi fihima daal di toroxlu jëm ci yàlla di ko ñaan wa xultu yaa xayra xaafirin dunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa an wa may yajuru shakka ne ay waay yow ngeen ji ci galakon bi ci ay bakkaar yow mi nga xam ne yaa gën ji mën a tijji tënkub ab otaas ku njëng ku ñu jàpp njaam kon de maa ngi lay ñaan nga ci nga tinki nee na tënkub jullit ñi nee na na nga ko tinki te na nga leen fegal lépp luy bijji xaliyaar jeex jaxaa ndax xam nga coono suñ su méttee waa ji ma ne ah waaw man waaw man moom yàlla mi ma doon liggéeyal moom ah moom kon moom anam nag waaye sëñ bi nag daal leen di wax loolu sëñ ma lam Jóob daal ni ñaari béyt yooyu ma ngi ci xasida gu ñuy wax wa maa maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ard loolu lu am solo la kon li li sax li li jëriñ nit ñi day mooy sax ci kaw suuf loolu kon lu am solo la mooy mooy kon kan ñoom seen gëm gaak seen seen yooya dana sax nee na si si si bilam Jóob daan ne wala ala wusuli xabarihima ilayhi wajadahu fiiha fa nasaja dua nee na mën naa am de booba bi muy digg xabar bi dafa fekk xasi dëgg sëñ bi di di ko bind mu daal nañ ci dugal ca biir loolu kon loolu kon moom leer na kon ñu ne ñu ne kon gaa yee ko dañ leen a boole gayndee ñu rey leen maanaam ñu ñu ñu lekk leen ak yooyu daa mel ne kon ñii di kon xaa kon bokk ñu ñu ci kon yaakaar naa sëñ sëñ Moussa Ka ma nga naan di lim ñeent ña Cheikh Ahmadou Aminata naan naan sëtu Matar Dumbe ma sëñ kokki Ahmadou Aminata ñoo ko sànki maanaam ñoo ko yóbbu Gabon mooy moomu 1895 ñoo ko Sëñ Tuubaa ñoo ñoo demoon Gabon dellusiwaat na waaye nag wax nañ ne nuñ ko waxati go goree fa lañ ko téye woon ba fa la wàccib liggéey ak sëñ Lambañ Seck ñi nga xam ne sëñ bi bari tudd na turam foofu ak Makka Bara ma ma ma xaali Guèye sëñ Modou duggee parcelle laaj naa ko mu ne ma mu ne ma magi maamam la waaye nañ nañ nañ déglu fii nag loo xam ne ba tey mu gën a firndéwu soo demee ci mañ moo xam bi nga xam ne moo nekk ci ci kaggu gi sëñ Moussa Diatara boo demee foofa da nga fa da nga fekk ca man moo ba paas 95 da nga fa fekk jawaabu jawaabu min Cheikh al Xadim fii Lambarane ila Seydi Lambañ Sekk fii Luwaga dégg nga dégg nga ni ko ni ni ni ñu tagge kooku mooy seen seen seen Lambañ Sekk mi ñu doon wax loolu suñu Mouhamad Sekk moomu nee na jaama jaama xaysa si la mille trois cent dix-huit kon jëy jëy sasin kon teg nañ ci ab diir kon sëñ bi daal di wax ne salaamun taamun wa ikraamun am déggal nuyoo wari ak a jëkk nee na nuyoo bu jëkk lool mucc gu mat sëkk ak tiraanga ju matale kon ma nga leen jox kon si seen seen gëdd ñoom daal ne way laa jamii man maahu min al muminin ay sëñ Lamine Seck lay nuyu ak képp koo xam ne nekk na foofu ak moom ci way gëm yi waxul muslimin de muslimin moom yomb na kuy tuxaaka naan sangaraaka njaaloo ka rëy nit muslim la ci biir muslim la bu dee gëm na yàlla su ko neexee julli su ko neexee bañ julli su ko neexee woor su ko neexee bañ a woor kooku julli la waaye mumin mooy ñi nga xam ne du ñu def dara dara lu yàlla lu neexul ci ci borom bi ñooñu ñooñu allasina amanu wa kaanu yattaqun gaaya ngoog amana rasul bi ma unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun koy yonte bi rek ñoom ñoo cee topp saxaaba yak ñëpp ci biir mu'minin yi ci ci lañu dugg ni ko ama baad faalam yaa axi déggal teraanga ji ko suñ duwaa jox ay waay kon de koy wax ci ñoom war ngaa wax lu jëkk xanaa faalam yaa axi yow na nga xam yow sama mbokk mi bi anni lam an saka mun su tafaaraq naa kon ñoom kon daje woon nañ kon ca ndaraja kon mën naam kon bokk nañ nañ gaal waaye waaye dañ leen tàqale sëñ bi ne ko ay waay fàttewuma la de xanaa ba ñu tàqaloo ba tey tàqali ko ba tey de fàttewuma la kon yow kon kon yow fatim nafsan ay waay kon na sa xel dal ah wa wa xarraay nan na nga na sam xel ba tey day daal fii amul bul am benn jafe-jafe coono yooyu kon na nga ko ko fàtte ndax man kat fàttewuma la wala tun si nii yow it déglul boo waxin waaye Sëñ Tuubaa ne ko sëñ Lambañ yow it nag bul ma fàtte fii saali en duwaa sa ñaan yi day bul ma ci fàtte kon sëñ Sëñ Tuubaa kon jox jox na nga dëgg ko kooku de al anbiyaay alayhimu salaatu wasalaam na nga xamal gaa yi ngi leen ku muñ ci ñoom day dana am yoolub ñamuñoon ànd ak yonent ya alayhi salaam mooy mooy saxaaba yi seen daraja ya da nga ko am ah sëñ bi sëñ bi ñooñu sëñ bi yëmu ci de mu ne fakafa bi dalika faxra loolu kat doy na nag pukkure nga ci ci nga am garaatu gaayoo ya doy na xanaa de ci ñii di xanaa ku koy wax ci ñoom du noonu xanaa dof nga ay waay ñii di xanaa ku koy wax ci ñoom du noonu kon xanaa kon yow de da ngaa xamut ña ñàngaleb s Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daal di waxaat ne ci bare ma nga ci lettre ba de maan wa duumu ala qiraati rabbana laa tuzi qulubana al aaya loolu kon kon it ñun ñëpp it war nañ koo jël di di ko jàng ndax jamono nëx na de ku yeex sën sëngam yàqu si sëñ bi ne ko di leen jàng aaya boobu di ko werd mu nekk werd mu ne ko dina na ngeen di jàngit wala xiraati rabbana xafir lana zunubana wa israfana al aaya ba ba tey loolu day na ngeen koy werd lu tax zunubana wa israfana nit bu tënk ku nekk ci tënk-tënk rek bakkaar ko tënk kon nag su bakkaar ba jeexee tënk tënk ku daal di mën a am sëñ bi daal di ne wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon day mucc yàlla na këpp ci seen kaw yemande yàlla ji. ak barkeem ba daal di ne nag ah waxat baasu ilayka allazi ijtamaa fihi al imaanu wal islaamu wal ihsaan wa tawxiid wal fiq wa tasawuf mu ne ko nag dangaa sakkoon ci man ma yónni ne la ay téere lu fu jàppandi ci ay téere téere yi xam-xam diine yi ah ne man day yónnee naa la li nga xam ne boole na xam-xam yi al imaan islaam ihsaan tawxiid fiq tasawuf waaye nag am na loo bëggoon de wa ma kitaabul qur'aan fa manaani min baasihi ilayka ma alimta fi sharci min annahi bi hada alkitaab laa yamusuhu illa almutahharuun dégg nga de sëñ bi bi ne ko alxuraan de moom di yàlla yónneewu ma la ko ndax li nga xam li li li tax yónneewu ma la ko li li ma tere ma yónnee la ko mooy li nga xam yow ci sharia kon kon kon kooku borom xam-xam bu bu mag a mag la li nga xam ci sharia kat ni sharia tere ñu alxuraan ji ñu ñu ko jaaree ci la ci yoon woo xam ne ay yéefar la wala dafa salte lu am solo la mu ne sëñ bi dal ne falaallahu yaati bil fatx aw amrin min inde ay waaye mën naa am kat yàlla indi ubbi suñ diggante tubaab yi ba li nga bëgg ci alxuraan lépp nga ci nga mën coo jot wala boog ah mu indi ci ci mbiram loola moom dogalam ba lu ko soob mu yàq mu ne ko nag ay waaye sëñ Mouhamadou Seck waalam bi anni ala xayrin wa afiya wa salaama zahiran wa batinan ne ko ay waay na nga xam nag gat mbokk mi man de maa ngi ci aw yiw maa ngi ci jàmm maa ngi ci mucc zahiran wa batinan ci sama biir sama bidd dara awma benn lor awma benn naqar ne ko xam nga sama mbokk mi lam ashtaki illa kasrata sunubi man kat jàmbatuma dara lu may xanaa barek bakkaar oh ko kooku di mbër la waay yarawna anfusahum dunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bi ijabati mbër baa ngoog de mu ne ko waa yow ba nafsi ak sama ayib bakkan man daal man daal sama problème daal moom loolu benn la mooy loolu rek man daal sama ayib daal xaw ma nooy fexe ba mu ne rek wa arju min allahi taala an yaxfira lana wa an yastura uyubana fi daarayni bi Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko ay waay man de maa ngi yaakaar ci borom bi tabaaraka wa taala mu jéggal nu nun ñëpp suturaal suñuy ayib nun ñëpp ci ñaari kër yi bu suñu ayib bu ñu ko fii bu mujj ko ëllëg ci kan ci barkeb sallallahu taala alayhi wa sallam daa ne ko lettre bi ana kan ma ko bind ci Ubaydullah njaamus yàlla Ahmad dubnu Muhammad dubnu Habibullah albaki ah gars yi de xanaa loolu leer leer nañ kon su sëñ Tuubaa ngoo kon ngaayam yaa ngoog ku ne dañ leen a boole ak gaynde mu lekk leen yooyu daa mel ne waxi gone la woon waxi bàmba ma su xam yi ñoo ko daa wax ak kuréelkat yi ci mbedd yi borom xam-xam yi nag bu ñu déggee nag gaa yi di wax lu wérul ci taarixu Sëñ Tuubaa war nañoo jóg dindi ko ndax nag kat borom xel yi kat soo waxee loo xam ne wérut am xel mën mën na koo ba ba ba bañ a nangu te kon da yàgg bu yàggee ñu yaakaar ne ah mbaadi kon li murid yi wax lépp nii la la mel te loolu amut alhaji malik si bokkoon na ca ña tubaab ji ji woon gëstu mbiram bari na sëñ sëñ sëñ lew nañ ña seen moom it noona tubaab yi woon nañ ko gëstu mbiram waaye képp koo xam ne dañoo gëstu su sa sa mbir nga ne man ab sëriñ daara képp laa ñu ñu bala ñi nga xam ne ñoo ne woon ñoom day ay mursid lañ woon ay gidd lañ woon yoo xam ne dañu yóbbu nit ci suñu borom ñooñe lañ soxla woon ñooñe dañ leen a yóbbu exil am na ci ñoo xam ne del si wuñ Ahmadou Aminata moom moom mooy wax sëñ sëñ kokki moom indiwaat na doon nañ ko jógee ci ci Gabon ba ca Gorée waaye yi ci fa des waaye la gën a am solo kon mooy suñ suñu wax ne bu ngeen muñee day da ngeen am yoolub ña muñoon ànd ak anbiya ya te mu ne loolu day fa kafa bi day kafaraan loolu doy na sëkk puukare doy na ci ndam kon kon yaakaar naa ci incha allah dañ am beneen dox beneen daje boo xam ne mën naa am ku mel ne ku mel ne Sambourou Touré ndaanaan lu lu mag la ñu bari ci noonu ñu ko histoire mbedd yi di waxee dafa wuteeg loola kon na ci naan ci jëram amee danañ ci def waxtaan boo xamante ne wu yaatu incha allah ngir nit ñi gën a xam mag ñi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu